suratul Ixlaas yi daarul Ixlaas ngoog makkiya suñ ko jox makka la madaniyatin arbaun ñeent la aw comme su aaya bu koy juróomi aaya de allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar la ilaha illallah اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا الأولين والآخرين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وقدره وقدره العظيم مثل يد سواء يلوم ولكم مليار مثل يد سواء يلوم لا قبل جدك دج يلا من قبل جدك من جبر يلا من قبل قبل جدك يلا من قبل قبل جدك yàlla yàlla boole ci jaamu yooyu tànn yéen sëtam yéen a dem jiitu ci yéen bugalam yàlla yàlla boole ci jaamu yéen tëpp dara yaram yàlla yàlla def ñu jaamu yàlla xaqan dañoo def ñu jaamu seytaane dañoo def ñu jaamu bakkan dañoo def ñu jaamu àddina dañoo def ñu jaamu buuri yàlla yàlla musal ci mbarim ay yónneen ak tey ci yónneen ak balaa yónneen yàlla yàlla musal ci ay seytaane ay bakkan
moo wax sama jënd li ma dem wóoru arrahmaani ka yaa ñu xéewal ñu laa fu lépp ci àddina arrayni ka daaji xéewal ji daal ca àllaaxira xulu wala aadun balaa ñoo sàbbi ci firim baat yi dafay jiital ay fasal fasal bi jëkk ja mooy ngëneeni saaru xulu wala aadun yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ne ku jàng xulu wala aadun benn yoon mel na ni jàng nga sulusi alquran maanaam ku jàng xulu wala aadun ñetti yoon mel na ni wasal nga alquran te yàlla dana la bindal yoola képp ku gëm yàlla ak képp ku wedd yàlla ci njël beneen gi néew yi ba ca mujj yonent na ne sallallahu alayhi wa sallam ku jàng xulu wala aadun benn yoon yàlla dana ko bindal yoola képp ku gëm yàlla ak képp ku masa jaamu yàlla te bindal ko yoola téeméeri nit ñi sayit ci toolu xare yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mas naa taxaw jënd bés ak Jibril Abu Zarin di ñëw Jibril ne Abu Zarin na ne di ñëw yonent ne ko sallallahu alayhi wa sallam waaw yéen malaaka yi xam ngeen Abu Zarin mu ne ko Abu Zarin dafa malaaka yi la gën a séye fuuf ci yéen nit ñi yonent ne ko ne ko may loolu nga leen mu ne ko boppam dafa tuuti fi moom lool te dafa bëri lu muy jàng xul wala aadun de ci xarit tambo xëy nañ jant bi fenk amu ci ceeneer amul naaj te daawul mel noonu ñu laaj yonent bi ne ko bii lu ko waral mësuñ koo gis mu ne yàlla xebal juróom ñaar fukk ak junne ci malaayika ne nañ fekkee njuleet ñi yëpp Muhaawiya nu Muhaawiya tamit dee tey ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mënu ko may loolu nga leen mu ne dafa soppoon xul wala aadun de loolu jibril wàcce ne ko yàlla na ne ma randal daj yëpp sa digganteen ñii boobu yaa saaba yi ngeen jullee ko daldi randal daj yëpp ñu janoon ñii ba ñu jullee ko te booba yonent sallallahu alayhi wa sallam ma nga ca tamboog amoon na ci Medina yenn yenn maa ni jàkka yoo xam ne fa daa def bu jàngee faatiha ba mu jeex ci rakka bu nekk mu jàng xul wala aadun soo ko jàng weneen saar maa mooma mu yokkuloo ak moom ne ko benn ngay jàng saar wi rek di ko teg ci faatiha wala nga jàng weneen saar te bayi ko waaye li ngay def bët bu set boo jeexalee faatiha jàng xul wala aadun soo ko jàng saar wi ci teg daal gisuñ kenn di ko def te dootuñ nangu nga def ko ñëw tawat si ko fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bañ ko ko waxee mu ne leen su ngeen yeboo bàyyi ma may def li ma neex ma di leen jullee nii may jullee su ngeen bëggu ditam tànn leen beneen imaam rek sama ngeen folli ma de waaye man duma ko bàyyi ñu ñëw xawat ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent xoo ko ne ko lu tax ngay jàng xul wala aadun ci rakk bu nekk soo ko jàng aw saar mu ne ko man saar woowu dama koo sopp de yonent ne ko sopp gi nga sopp saar woowu dugal na daal jana yow jeeg maanaam yonent wéen na jëf jim doon jëf xasali ñaareel de mooy saar yi am na ay tur yu bari tur yu bari nag dafay tegtale ngëneelal ci ñuy tudde saar yi dañ ko tudde saaru tafriid danañ ko tudde tajriid danañ ko tudde tawhiid danañ ko tudde lixlaas yeneen ci tur yëpp ñoo xaw a bokk maanaa tafriid waaw mooy wéetal tajriid mooy rafleel tawhiid mooy wéetal lixlaas mooy sallal ci wéetal yooyu yëpp dafa war a ne dafay wéetal yàlla dëgg-dëgg wéetal danañ tudde saar wi najaati ji fi mucc ndax képp ku koy jàng mucc nga ci bokkaale yàlla ci àddina mucc nga ci safara ci àllaaxira danañ ko tuddee nisbatu mooy xaskan lu tax dana ñëw léegi ci sabab seen sabab bi dañoo laaj yonent bi ne ko wax ñu xaskanu sa borom mu ne xul wala aadul moo tax de ñu di ko tuddee ne mooy xaskanu yàlla ni ki nga xam ne nit ñi bëgguñu kuy tudd seen xaskan di ca boole ku ca bokkut wala di ca wàññi kenn xul wala aadul itam mooy xaskanu yàlla nelaw bi mu saxalal yàlla waruñ cee wàññi dara waaye itam waruñ cee yokk dara de danañ ko tuddee wilaaya moom saar yi ndax ku bëri di jàngam nekk di wàllu yàlla danañ ko tuddee jamaal ndax moo lamboo saarab yàlla danañ ko tuddee maarifatu jii jiri xam yàlla ndax ku xam li saar yi lamboo rek xam nga yàlla de dëgg-dëgg xam danañ ko tuddee mu xas tësatu jii jiri aji wéral ci kéefër ndax ku jàng saar yi mu wéral la ci kéefër danañ ko tuddee al muxtabaratu jii jiri luñ teewee ndax suñ koy jàngee malaaka yëpp dañuy ñëw di ko teewee moo tax ñu di ko tuddee saar yi ñuy teewee danañ ko tuddee torotu samadi ndax baakat samadi bi nga xam ne ñëpp ci biitam danañ ko tuddee maaniatu ndax dafay tere mbugalam bàmmeel képp ku ko jàng duñ ko bugal ci bàmmeelam danañ ko tuddee baraatu bii jirit dañ ndax képp ku koy jàng dañ nga ci kéefar de xam nga itam téere bu la dañal ci neen safara yow doo ca dugg danañ ko tuddee saaru ndóor de ak leer ndax mooy leer ak mooy melaw yàlla te yàlla dana laaw loolu samawaati wala li danañ ko tuddee lamaan bii firi awaaw kóllëre ku ko jàng xoolu nga mbugalam xalaaxira danañ ko tuddee mun a feratu bii firi aji ndaw loo ndax ku ñu ko jànge saytaane daw fa danañ ko tuddee asaar ji nga xam ne mooy firi waaw kondomong de ndax li nga xam ne yonent na ne kondomong nañ asamaan yi juróom yaar ak suufi juróom yaar agara sa kursi waaw ci saaru waaw xul wala arunde danañ ko tuddee maa wisatu kenn ci maa wisaat yi la de nit ci sa nit ci tur yooyu yëpp ñeel na waaw saaru xul wala arun moo ne wan li nga xam ne moom la lamboon ci ngëneel de sabab yi nu soolam nag wute nañ ci ñu ne neefar yi ñoo yónni Amir ibnu Tufayl ñu ne yahood yi ñoo laaj yonent bi ñu ne waf duna saraan na jaraan ñoo laaj yonent bi ñëpp nag waaw mën naa yëpp mën naa nekk sama suñu suuf la ndax mu ci nekk am na Amir ibnu Tufayl ñëw na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko Quraysh ñoo yónni ci yow ne nañu su fekkee da ngaa ñàkk te bëgg xalal ñu dajale la xalal ba nga gën a riis ci àddina su fekkee ni jinne la jàpp ñu wut docteur la faj ba nga wét bu fekkee da ngaa bëgg jigéen waxal jigéen ñi nga bëgg yépp ñu dajale ko jox la su fekkee ni itam bëgg canga la ci jóo waxal ñu fan la ngay suñu buur foofu la ak canga yem de yonent ne ñàkkuma soxlawuma jinne jàppul ma bëgguma jigéen yonentam yàlla laa bu jëm ci yéen di leen xoo ne na ngeen bari jaamu xërëm jaamu yàlla rek nga xam ne moo leen sàkk lii rek mooy mooy li am ñu ne ko ñun nga dañu xoo ji jaamu jenn yàlla rek te ñun ñu ngi jaamu ñetti téeméeri yàlla ak juróom benn fukki yàlla ak ñett te yàlla yooyu ba léegi lot nañ ci suñu aajo yi nga bëgg ñu xoo ci jenn yàlla ba nana fu ñu jëm yonent leen maa ngi leen di xoo rek ci jaamu jenn yàlla yoo xam ne su ngeen ko jaamoo mu doy leen walit ñetti téeméeri yàlla yooyu ñu ne ko melal ñu yàlla ñoo gën a wax ñu namba gam day waa naw loo sam toll bañ xam lu mën a yenu waaw ci wurus la bàyyi koom ci xaalis la bàyyi ko waaw yeneen ci mer jibril ñëw ne ko nooyal rek waaw nooyal waaw bu nar de waaw daal di wàcce saar xul wala aadu ñu ne yow dee ko ne wax ñu sa askanu borom waaw bañ xam ko de borom bi lay wax de jëm ci jaamoo wax ñu askanam waaw ñu ne waaw nasaraan yi najaraama ñoo ko ne yàlla ñu ngay wax ne kenn la moom kenn la yow itam kenn nga waaw loolu nag jaaxal nañu mu ne leen lay sa kamis yi seyun yàlla dara melut ni moom yàlla kenn la mu ne ko dolli koo leeral mu ne yàlla ki nga xam ne moom lañ jublu ci mboole ne aajo mooy baat baat yi saar war a indi fi ki nga xam ne képp ko aajo ci moom nga jëm kooku laa wax ñu ne ko dollil mu ne jurul doom waaw xuutee mariama ki ñu bëgg a def yàlla tam jur insa juruñ ko itam muy watani ko insa mi nga xam ne ñu koy def yàlla te dañ koy jur amul njëriñ itam de waaw yooyu ñooy sabab yi ñu sóori waaw saar wi de li nga xam ne ne mooy maanaam li yonent bi wax ci saar wi ne ku ko jàng mel na ni jàng nga sulu fi alquran saar wi mi ngi niru saaru qul yaa ayyuhal kaafiruuna saaru qul yaa ayyuhal kaafiruuna itam yonent wax na ca ne jàng kaloo naag rubool alquran maanaam ku xaar ñeneen ci yoonam daal tolloo naa kaamil bi bii mu ne ñetti yoonam tolloo naa kaamil bi lu tax fii ci taal bi ne fii xul wala aadun liñ bëgg ci mboolem xam-xam yëpp fànn yëpp lañ bëgg a xam waaye lañ ca bëgg lenn rek la mooy xam yàlla ci jëmmam ak ci meloom ak ci turam muy ñetti xaaj xam yàlla ci jëmmam nag xul wala aadun jeexal na ko tak kon moo tax buñ tudd si alxuraan di tudd si mboolem xam-xam yi naka nga xam ne xul ay wal kaafiruuna ñiñ takku ci mu kàllaf yeneen ci yëf la def ak bëy ci xol ak ci yaram xul ay wal kaafiruuna lépp lu ñu war a bëy itam aju ci xol lamboo na ko moo tax bi moom itam muy ñementeeri alxuraan xul wala aadum nag nekk na ci ngëreelam képp ku ko xam xam nga yàlla te xam yàlla fii ci àddina mooy tabbi aljanna te féewaloo tax na ba aljanna ji teew mooy xul wala aadu lu tax ana li aljanna aljanna mooy nga xam ni dëppoog sa bakkan dëppoog sa xel lépp dana neex bakkan lool waaye xel mi ànd ci bakkan faala na lépp ñu dëppoog sa bakkan dëppoog sa xel lépp dana neex bakkan lool waaye xel mi ànd ci bakkan faala na dëgg ci sa xel bakkan bi lànk ngir ndëgëm ma jàng boo xamee nag ne lëf lii xam nga li dëppoog sa bakkan dëppoog sa xel rek loolu mooy aljana aljana rek lañ ci mën a xamee loolu ba mu sotti li la neex ci sa bakkan ba mu sotti te neex la itam ci sa xel ba mu sotti moo tax aadama ba ko ba nga xam ne yaari xel rek ci aljana aljana nekkatul aljana ci moom ba ko Iblis jax-jaxale ga lekk garab gi ñu ko aayoon dem xam yaari xel ba lekk garab ga waaw daal lay génn aljana ndax aljana nekkatul ci moom aljana fay dëppoog sa bakkan dëppoog sa xel kon nag ku xam yàlla xam nga aljana ndax xam nga nu dëppoog sa bakkan dëppoog sa xel nit ki ñaari xaajale ci moom bakkan bi ak xel mi xel mi lu mu bëgg am ku mu wóolu koo xam ne lépp lu mu baax le moom la koy dénk bakkan bi lu mu bëgg am risaas bu tabe boo xam ne lépp lu mu soxla ñaan ko ko rek mu may ko ko bu fekkee xam nga yàlla nag yaar yépp daje na xam nga kuñ wóolu koo xam ne lépp loo ko dénk ci yiw mu wóor la ne doo ci sànku bakkan bi itam am na risaas bu tabe boo xam ne lépp lu mu am ci yaakaar ak lu mu bëgg ak lépp lu mu ñaan rek mën na koo jubale ci kooku kon xam nga li bakkan bi bëgg ak li xel bi bëgg moo tax muy aljanna ñu sotti xul wala nag ñu la ko maye mooy gis nga kii kii yàlla muy risaas bi nga xam ne lépp loo bëgg mën nga ko ko ñaan muy kuñ moolu ki nga xam ne lépp loo dénkaane mën nga ko koo dénk sa bakkan mën naa werante nag ngay nag nga ne xëy na xam na keneen ku mel ni moom muy ñaar xul wala aadum xamal na la ne kii rek la amul ñaareel dal na lay noppal nag bon nga xam ne ñi nga doon wut daal xam nga ko te amul feneen mooy yàlla mii teew fi sa kanam rek loo bëgg laaj ko ko lépp loo am ci lu baax looy dénkaane dénk ko ko moo tax ne xul wala aadun may na la jar nañu teew léegi bi nga xamee ne may na la xam yàlla dëgg-dëgg alquran yëpp laa yu ci bëri dana xam ne yàlla saar yu ci bëri dana xam ne yàlla waxoon naa leen xam yi nga xam ne moo booroo ja alquran tawhid moo ci jëkkoon waane nag lu tax xul wala aadun raw leen ci loolu yëpp mooy gàtt gi saar yu gàtt te boole mboole fan yi taw yi yëpp nga xam ne saar la woo xam ne lu nit gàtt gàttam xel lu nit naqari naqari xel lu nit yàgga di yàgga di cee daara ja moo mën ngaa mokkal saar woowu saar yi ni mu gàtte te lépp loo soxla ci taw yi mu lamboo ko loolu mooy njëriñam waaw lu saaru baqara wu gudd lamboo ko nga xam ne mokkal ko jafe na la waaw saaru gàtt wi moom indi la la ko de tënkal na la la yàlla yëpp te dara desul waaw boo dëkkee di jàng woowu saar rek yow wali yu yàlla nga soo xamee saar woowu rek waaw yow xam nga yàlla rek bu xam yàlla nag daan lay dugg ci yàlla jàng yoo xam ne waaw doo ci cër génn mukk de loolu mooy lenn ci njëriñ yi saar wi xul wala aadu lërënt na ne ku ko jàng waaw fukki yoon ñu tabaxal lañ jëndi ci aljana de ku ko jàng ñaar fukki yoon ñu tabaxal la ñaari jëndi ci aljana Ibrahima wax na yeneen sa ah boo suñ jënd yi dana bari waaw mu ne ko jàng leen rek ngir leen yàlla moo gën a yaa loolu na ne yonent na ne waaye ñëwoon na ci moom taat ne ko man dama ñàkk baaw ma dara mu ne ko soo duggee ci sa kër nuyoo su fa kenn nekkee su fa kenn nekkul itam waaw nuyoo rek waaw ne nuyu naa jàmm yàlla yu te jàng xul wala ahadun de waaye ñu dëgg ko rek wër sa gëm bëgg bëgg ci ay dëkkandoo de waaw na ne boo taxoo ci sa lal bëgg a nelaw na nga jàng xul wala ahadun de te de sa wetu la joor booy deexee booy taxaw fi sa kanam borom ba lay wax ne sa wet gi nga doon tëddee di jàng xul wala ahadun topp ko rek waaw ba dem dugg aljana rek ba nga xamee nag ne laaj nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ñu sa askanu borom wax ñu sa borom nam mel nam bëggam mel waaw ne aw loosam tollu ne tànkam tollu waaw ak askanum mbokk ci wuru sa bokkam ci xaalis sa bokkam waaw mi askanum dëgg-dëgg daal wax ñu ko ñun yàlla ji ñuy wax xamuñu ko buur ne xul waxal yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne huwa li mbidam ngit allahu yàlla a duñ kenn la mu de buñ lay laaj yàlla wax leen ne yàlla mi ngeen may laaj tont la mooy lan mooy kenn la rek amul ndinu ndend ci jëmmam amul ndend ci meloom amul ndend ci turam amul ndend ci jëfam de kenn rek la te yàlla rek ay kenn amaa nit ki mën da nekk kenn ndax ñaar yaram ak roxo ñoo fi booloo nit ki soog a toog bàyyi koo ci ñaar la rek bàyyi dugg ci diggante ñaar guddee bëccëg nekk ci diggante yaar dund ak dee kooku ana fu muy doyee kenn kooku du kenn te nit ki ñu ko toggalee kawar gaa ngi féete kaw der baa ngi ci topp di beneen xeet bokkut ak kawar dara niroowuñ dara deret jaa ngi ci topp niroowut ak yaar yu njëkk yi tuus yàpp waa ngi ci topp gerees gaa ngi ci topp sëbi gaa ngi ci topp waaw yàq baa ngi ci topp yuq gaa ngi ci biir yàq we ñoom ñëpp lu ci ne xeetu boppam la bokkut ak la ca def dara kooku yi moom bari na jeeg te kenn nit ki rek ñetti téeméeri sa biit ak juróom benn fukk ak ñett ci sa biir mu ngi ci kooku du kenn ay xaaj yu bari yu toggale la yàlla nag moom loolu yëpp dara laalu ko ca kenn la ci jëmmam kenn la ci melowam kenn la ci turam kenn la ci jëfam amul bokkaale dara melul ni moom ñetti baata nga wallaahu ahadun maqaama yi ñett lañ ñi nga xam ne xam nañ yàlla bu mat sëpp te lab nañ ci yàlla da duñ fàtte yàlla mukk duñ fàtte li ko mukk lu dul yàlla ñooñu baat bu njëkk bi rek doy na leen soole fuuga rek seen xel du daj kenn lu mooy yàlla ña ca teg ña ca togg ña ca tegu soxla nañ nga ne huwa laaw ñu soog a xam ne yàlla ngay wax ñi xamul yàlla nag ñoom dañ leen di xamal ne leen yàlla la te kenn la ñu soog a xam ñoom ne kii mooy yàlla ñetti maqaama yaa ngi fi maqaama bu njëkk bi mooy muqarrabuuna huwa doy na leen maqaamam ñaareel bi mooy asaabul yamini maqaamam ñetteel bi mooy asaabu simaali de ñoom la ñuy waxal ne leen ahadun nakiraan nañ ko nag ndax wéet ak yàlla ga lëf la loo xam ne kenn mënu koo xam kenn mën na xam daay wéetal yàlla ga balaa nga ko wéetal yow far fa jóge te dund far jeex bu fekkee ne yaa ngi yow aji wéetal ji moom mi ngi moom mi ngay wéetal ñaara ngoo kon taw yi amut yow taw yi ji yàlla yàq kooku mënul ne balaa ngaa mën a wéetal yàlla dëgg-dëgg yàlla rek wéetal jëmmam ci jëmmam leneen nekku fa bu fa leneen nekkul nañ koy xamee moo tax nag la la yoo xam ne du maari foofu mukk moom ahadun moo tax dañu nakkiral ko ahadun nag lisim la yoo xam ne cosaanam mooy wahadun ñu ngi bàyyi ko ci waaye di giri benn waaye yaaram duñ ko jëfandikoo lu mooy gannaaw dàq mais laysa ahadun wala maa fi daari ahadun masalan dàq ko doon jiitu mu soog a ñëw fii ci xul wala ahadun rek lañ gisee baatal ahadun ñëw ci ak saxal boo xam ne genn dàq jiitu ko li ko waral nag mooy saxal jëm saxal wéetal yàlla ga dafa sax ba dàq leneen lu moom ba dàq googa saxal googa taxaw na taxawaayam dàq moo tax muy aadun aadun nag kenn nag ñaar ak ñett ñoo ci xemoo day woon na lëpp nag aadun mel ni saa yi nga xam ne mbooloo mën nañ leen a wax aadun ñaar mën nañ leen a wax aadun kenn mën nañ ko wax aadun bu dàqee nag moom dara du fa def mën ngaa wax ne zaydun laa yuqaawimuhu waahidun séet kenn mën da dëgganteeg moom soo waxee loolu mën nañ laa wax ne waa yu xaaw yu moo isnayn wala salaasatu waaye sooy na laa yu xaaw yu moo ahadun kon nga fi indi dara dañuy wax ne dañuy xam ne kenn du bëgganteeg moom yàlla nag moom itam ñu itam nga noonu la mel yàlla kenn la koo xam ne kennam nga dàq na lépp lu dul kennam nga allahu yàlla assamadu moomadi kuñ jublu ci mboole mi haajo bi nga xamee ne wax na ne yàlla ahadun la ñu ne ko dolli ñu ci meloom yi de mu ne mooy ki nga xam ne ñëpp képp ko haajo rek moom nga jubale sa haajo de ku am doole ku am am koom ku tabe ku xam ñu koy laaj képp ku koy xoor te du fàddu mukk ñu di ko nekk du fàtte ñu di ko fàttali du lott ñu di ko dimbale nga xam ne mbindeef yépp mën nañoo fab seeni soxla jëmale ko ci moom na leen mboole seen seen way jëkk ak seen way mujj seen nit ak seen jinne suñ daje woon ci benn pàkk ku nekk wax lay mébétam mébéta mébéta mébéta mébéta mébét ba xelam dara desu ca lu muy mébét ñeet ñépp ma may leen li ngeen mébét du wàññi ci sama magasin ya dara nooy puso boo ko labalee ci géej gu rëy gi lu puso ba wàññi ca loxoom géej ga may yi ma leen di may mënu ko wàññi ci sama magasin yi xam nga man kooku moom lañ mën a jubalee mbooleem aajo yi mooy nga xam nag ne yàlla ji nga xam ne mbindeef yépp xam nañ ko te mbindeef yépp ci moom lañ jubalee seeni aajo ak léefar luñ bew bew soo xamee tar-tar ñëw na rek ñu dengoo jëm ci yàlla ne lii kan moom yàlla rek a ci mën garab su ñaane yàlla ba yàlla may leen lañ bëgg nag ñu ko ko dew nag di tudde yeneen yàlla waaw di fàtte yàlla waaye nag ku jàqara ñëw ak tab-tab ñëw amul di xol ak baa ñi ragal yàlla ak ñi ñeme yàlla ñëpp du tab-tab ne këtt ñëpp seen xol du dem fenn lu moy ci yàlla koo ne ñëpp di jëm ci moom ak aajo yi kooku ne moo di yàlla rek wax na ne ahadun nakiraal ko wax na ne asamadu maarifaal ko loolu itam mooy hikmatu ci takraar gi ñu def ci baatab laahu bi de huwa allahu ahadun dellu ne allahu samadu su fekkoon ni baa muñ baatab allahu bi kon yaari sifa yi yenn waatu yi benn ñu yaari nakira rek wala ñu yaari maarifa waaye ne allahu ahadun samadu kooku dagul ci wax yaaram ne kon dañu wax ne ahadun samadun rek wala ñu ne lahadu samadu waaye waaw nakiraar kii maarifaal kii mën nga am lu may ba ta takraar yi baatam laaw bi ñëwee moo tax dañu ne allahu ahadun nakiraal ko bañ bëggee maarifaal samadu nag ñu dellu baamu xaar allahu ja ne allahu samadu te ahadun ji nakira rek moo ci xel ndax tawhid wéetal yàlla nëbbu la nëbbu boo xam ne nakira yi du maarifa wu ni ma ko waxee woon sànq samadu itam maarifa la yoo xam ne nanguwuta nakira mukk laa dina ki nga xam ne ñëpp ci moom lañ jëmale seeni soxla kooku ku am la koo xam ne mën da nekk nakira loolu mooy hikmati ci takraar yi ñu def ci baatal allahu bi de su taxutoon ak takraar gi duñ mën a wax na aadun assamadu de li wax kat yi loolu daganul moo tax dañu ne allahu yàlla aadun kenn la mu allahu yàlla assamadu moom a dikk mu jublu ci mbooleem aajo de mbooleem ñooñ asamaan ak ñooñ suuf ñëpp ña nga jangoo jëm ci moom guddeeg bëccëg di tawat seeni soxla de ñoom ñëpp mu di leen fajal seeni soxla yàlla moomu laa leen di xoo jëm ci ngeen jaamu ko te bàyyi seen xërëm yi de mu ne lam yalid juddu mu moom yàlla juddu doom muy watandiku lu Mariam nga xam ne nasaara réer nañu ba ne yàlla la te jur na doom wala mi wala te juddeefu ko judduñ ko itam muy watandiku lu Isa ñi nga xam ne nasaara réer nañu ba def ko muy yàlla de te dañ koy jur rek yàlla moom kenn juru ko jurul kenn la moom terewoon mu wax ne lam yoolad wa lam yalid nit kay balaa jur doom ñu dëkk ko jur moom ci boppam ci toftale yaaram kon mel ni dafa waroon a wax ne judduñ ko juddu waaye moom dafa ne juddu judduñ ko li mujj moom la njëkkee lu waral loolu lam yalid juddu mu foofu la njëkkee lu tax loolu xoote nañ ko yàlla am nañu xoote ne jur na doom kenn waxul nag ne dañ koy jur bi nga xamee nag ne xooteel nañ ko ne jur na doom mu dàq mu dàq xoote boobu nga xam ne du dëgg toba fa xam ne naka noona itam moom jurul kenn rek jurul kenn te juruñ ko itam fa xam ne ne jurul kenn toba wax ne naka nga xam ne itam moom ci boppam juriñ ko ñu woote na yàlla am na doom ñaari xaaj lañ am na ci ñoo xam ne dañoo wax ne yàlla jur na moom ci boppam Isa doom yàlla la ci yàlla la jóge am na ci kuréel ci nasara loolu lañ gëm am na ci ñoo xam nag ne dañ ne Isa yàlla juru ko na am waaye def na ko muy doomam nit ñoo xam ne mën ngaa mën ngaa gis nit mu neex la rek nga ne def naa ko muy sama doom ñu ne yàlla def na noonu Isa de ni mu defee Ibrahima muy xaritam ni mu defee Muhammad muy habibam ñu ne def na Isa itam muy doomam de boobu ku leen ñoo gën a xoyof kéefër ndax nangu nañ ne yàlla jurul waaye Isa daal teral na ko ba def ko muy doomam yàlla nag dàq na yaar yépp na ne dem bi ci dëgg wax na ne wala mu yettaxis wala dem jàppul doom mooy weddi ñuy wax ne def na Isa muy doomam di lay juru ko itam fii mu wax ne lam yalit juddu mu delloo waxi ña wax ne wala da laahu bañ ne wala da laahu ci tëgg bu wér ci tëgg ak maal yàlla itam tontu leen ci maal ne lam yalit ne juddu de bañ ne ittaxasa laahu wala dan mu ne mattaxasa laahu min wala din na ne jàppul doom de defut kenn muy doomam ñëpp ay jaamam lañ Muhammad a gën a foor jaam rek la ko def Isa waxi noppi defut kenn muy doom ñëpp ci sappe si njaam la leen taxawal ñu wax ne def na Isa muy doomam waxuñ dëgg jurul itam jurul kenn dàq na yaari xeeti ndoom yëpp soo ko saxal nag ne te moom it kat juruñ ko caaxut ne waxul ne du jur ji ci li ñëw ndax loolu kenn xootewu ko wax nañ ne jur na ci li ñëwoon mu ne du dëgg juruma ñu ne jàpp na doom mu ne du dëgg jàpp ma kenn muy sama doom jaam rek laa jàppe ñëpp kenn waxul nag ne xal si naa jur doom moo tax jëkkiwut di weddi ne du jur ci doom ci lii ñëw si yàllaa ngoo kenn la koo xam ne kenn la kenn la koo xam ne moom lañ ñëpp xam salal koy yoxoo jëm ci moom a seeni aajo amul doom amul wàjjut kon nag Mariam lu ko wàcc ci dëgg doon yàlla gannaaw am na doom Isa lu ko wàcc ci muy doon yàlla gannaaw dañ koy jur rek te ñuy wax mille neuf cent soixante cinq ci ren boobu rek la ci duggat moo kooku na muy mën a doy yàlla alam bi nga xam ne ñu ngi naa am na fukki junne ñaar ci at ñi naa juróom ñaari junne na topp ñi naa ñetti téeméeri junne juróom benn fukki junne ci at moom laa dina amaale ki nga xam ne bi ñu juddoo léegi matagul ñaari junne ci at su dee yàlla ana ko doon yàlla ya alam bi nga xam ne leen juddoogul nag loolu wax bi yàqu la Isa mën na doon yàlla jaamam yàlla ngoog bu baax bu yàlla màggal xoolu ko yónni ko moom itam muy jaam bu jub boo xam ne mës da liggéey dara lu mooy jaamu boromam mës du àddina mës da denc jabar mës da lekk lu ko neex mës da xodu lu ko neex ku dëddu àddina la ngi di jaamu boromam moo jaabu dee yàlla lu ko ci yëpp fekke ku muy ku muy jaamu su fekke mooy yàlla moo fi dàq jaamu yàlla nag ñu koy jaamu ñëpp nangu nañ ne moo fi dàq jaamu yàlla man daal su ma doon yàlla du ma jaamu kenn Isa di yàlla ba noppi dàq fee jaamu yàlla loolu yenuwul maanaa walam yàkkul nekkut la woo ñeel yàlla ah kufaan di aji tolloog moom aadun kenn la mu de walam yàkkul nekkut aadun kenn kufaan di naw de la woo ñeel ko moom yàlla de amul kenn na koo xam ne naw le yàlla la saxalal na ko melo yëpp ba mu wóor la ne mooy yàlla mën naa jamtal nag xel mën naa jamtal nag ndax yeneen yàlla ji mel noonu xam na mu ne déedéet amul kenn la moom lañ jublu ci mbooleem aajo amul doom amul wajut amul ci dem keneen ku mel noonu moom rek a mel noonu